Mansour ñu jox leen cër jox leen respect man fa ndongoloo yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana duñ ko fàtte mukk di ko ñaanal Abdou Guité ndaanaan Yves Niang abu Cubalo suñu rak ñu ñëw fekk fi ñoom fal ñu nekk suñu ay mag ñu jox leen cër nekk seeni ndongo fàllu nee na sama ànd ak moom def na vingt ans bàyyiwuma ko ba tey grand yow duma la mës bàyyi à vie yow yaa ma njëkk dugal avion yóbbu ma jamono yooyu ah na trop nga écarté ma dañ daan def ten hours de New York à Chicago fàllu ñu jox ko escalier bu mag Mikaël mu ne ana pap ana ami ana Alioune Kassé toog leen ci ginnaaw grand mënoon nga ñu bàyyi ñu dugg ci bis bi mais danga ñu porté uuf ñu mënoon ngay jël say vol yow kese di dem fu ñu war a jëlee avion ñooy toog doo dem mukk business da ngay ñëw nekk ak ñun fu nu war a tukkee booy jël booy jël bu ñuy jël saret yow da ngay jël saret ànd ak ñun et jamono yooyu sama rêve moo nekkul tukki wane sama aar jéggi frontière yi loolu moo ma gënal milliard tey su ma demoon bay tibbee ndijoor ndijoor ak càmmoñ reconnaissance boobu du ma ko mës a fàtte si yow du ma la